après nga nga yow yaa ko ne da ngaa après bu la waxee dof ngeen bëgg a kii man da ngeen ma sa songoo xeex rek eh lii lan la arme. dégg nga xam naa ma dof ma waxee dof barki kii maam ma dof. da ngaa dóor lan ma dof. da ngaa dóor. dafay da koy dóor mu il est temps ñu dóor ko. ki dafa réew waay yow. waaw léegi léegi xam nga lu ñuy def. waaw na waxaat dof waxaat ma dof xeex waxaan ma def. xeex leen xeex leen. waxaan ma def. waxaan ma def. waxaan ma def. xeex leen waxaan ma def. xeex leen xeex leen. ay réewantalu rek wax ma def. kon xeexoo. li li yoon daa sax. Ah, xeex koy wax comme ça ma leen ngeen xeex. am problème yow man daal saa yu ngeen bëggee xeex rek da ngeen ma koy wax comme ça. sa nopp ñam nga sedd na de. tàng na jëm naa na de sedd na de sedd na de. waaw moom tamit bu fayoo yow it bul wax dara dégg nga. waaw saa yu ngeen waaw bu ngeen bu xeex rek ngeen wax ma ma ma bàyyi leen ngeen xeex dégg nga waaw. gis nga hmm. damay waaxu de. Hmm. day waaxu. lu tax muy waaxu. crevette mu boole ko. loo ko kii day dem ci géej gi. du dëgg. doo géej. géej gi moom saa ma xamal leen gis ngeen géej gi moom ñi ciy dem. te mënuñoo féey ñoo ëpp ña mën a féey. mais kon kon kay école yi. te ñoo ñëpp bu fekkee amuñu surveillance dañuy xaru parce que li ñuy bañ a dem ubbi école yi élèves yi jàngi li ñuy daje ci géej gi moo ko ko gën a garaaw moo ko gën a danger loolu laa jëlewul woon a wax dama laa bëgg a wax ne la waaw faanaa yi doon wax naan bul tijji école dañ ko a tijji parce la ñuy bañ ci école yi l'ensemble lu ko lawuñ ci géej gi nañu am école yi ni ñu dem jàng bu dee ci école yi dañuy jël ay mesures waaw bu dee ci géej gi jëluñu benn mesure amu ci benn mesure amu dañuy bañ ci géej gi lu dafay li ñu wàññi école lu ko raw la ñu am ci géej mu ngi ci géej waaw bu ñu ubbi woon école yi table banc bu nekk deux élèves di fa toog toog fii toog fële ñu yokk table banc yi bu ñuy duggoo yokk defal élèves yi ay masque ci biir saal bu nuy dugg ay gel dañuy lang un mètre waaw comme sept heures lay fekk ñëpp taxaw waaw un mètre un mètre waaw ku dugg waaw daxasu nga laal waaw laal teg la affaire bi waaw kii kii kuul nga nga dem nga dugg toog deux portables pas trois wala quatre portables. ku ku ku dugg. waaw ñu teg la baaxul. waaw ñu mette la en quarantaine. en waaw. su ko defee dañuy organiser man parce que hmm. dafa am leneen lu muy créer. lan lay pour yow. am na ay xale yoo xam yu ndaw yi la ñuy jaaree. jaaree fa bàyyi jaaree que vacances yi day gudd. waaw dañuy tàmm tàmm lu am na ñoo xam dañ fay dañoo bëgg xaalis dañuy jaare fa nga ñuy jaare li jënd benn métier bu ñuy bu ñuy bu ñuy wàccaale dara jaay ndox wala jaay gerte wala dara waaw jaare fa bàyyi jàmm bàyyi te loolu ab li gis nga gis nga gis nga léew hmm. léew surtout léew hmm. ci loxoy ndaw la nekk hmm. bu fekkente ni ndaw yi amuñu amuñu xam-xam amuñu éducation amuñu mais mais mais mais imagine toi xolal xolal pour dëggal li nga wax ba bañu bañu déclaré que ne école yi dañ koy tëj dañ doon jubilé waaw ci kontaan di kontaan. di yuuxu di kontaan di kontaan di dégg damaa noonu nag waaw léegi xoolal xoolal ñu ne école yi dañ koy ubbi ñu ne seen doom du ñu dem jàngi. ba pare bàyyi xale yu ndaw. dem ci te man li ma gën a naqari xale yu ndaw yooyu lañuy jàpp di leen jaayloo ndox di leen jaayloo gerte. di leen yenuloo ay mango. non travail aux enfants Sénégal defu ci li mu war a def. dañoo war a jàpp xale bu fi nekk naan day jaay ndox wala day jaay ay mango wala ñu koy liggéeyloo ñu jàpp ko ba ay parent am ñëw parce que xale dafa am at bu mu war a liggéey. xanaa amul ministère boo xamante loolu la war a ah ministère ministère ministère des enfants ngi mais araw. ah <laughs> xaw ma lu muy def. mais nañ ko woolee nañ ko woo. waaw waaw bu ñu mënee woowee waa ministère ba nañ ñu wool ministère. nañ leen woo ministère xale yi ñu bàyyi ñu wàcc ci géej gi. ñu dem wax war a mën a dem école te demuñu école géej gaa ngi fees del teel nañu teelal ay nit ñuy daw corona bi ci e-, ci ci ci yi te bàyyi géej gi fees dell waaw nañ woo ministère de l' éducation nationale aca ñoom nañ ko nañ leen woo yéex leen numéro ministre bi joole ma ñëw woo ko ñe ko ñàkku njaay bi la golden voice moo ne ngeen woo ko waaw kay moo waxoon moom carrément wax ko sama ñetti dëgg waaw mu jeex tàkk waaw fekk bi di jeex daal wër leen numéro ministre bi ba woo ko ñu ne ko plateau kaa ñu waxtaana la soxla waaw te rek euh, école yi ubbiwuñ ko parce que nee nañu dañuy bañ xale yi jàpp mbas mi ña nga bàyyi gone yi ñi ngi fees dell ci géej dell ci géej gi di dugg ca ndox maa ko gën di dàqante kenn takk xam nga kenn du dem géej gi takk masque kenn dafa takk masque kenn takkul masque dafa nii dañ ni xam nga ni géej géej gel amu fa kenn takku fa masque kenn takku fa gel waaw xam xam naa dañ xam naa dañ ñaan ku naan ci xorom si rek du romb na loolu loolu <laughs> dama nga fees dell dama nga fees <laughs> dell dama nga ni olof olof seen géej gaa nga fa te sonn nañu loolu ci mbas mi. waaw man nag. kooku allo allo kooku de météo la jël. allo sama oh. salaam. maa ngi ngi sant sunu borom yow la kan. man la na nga def. foo foo dëkk ak fan ngay wootee. ma ne foo dëkk ak ah. fan ngay wootee. maa ngi dëkk ah te dëkk bu sell ba na ngeen def waaye ñu ngi lay ziar di la màggal. waaw ñu ngi delloo ziar bu yàlla na fi yàgg te lool. amiin amiin yaa rabbi alamin amiin jëf jërëjëf. Hmm? jaajëf maa ngi lay ngeen def ana ana waa Touba. waa Touba ñu ngi. am jàmm na ngeen def tàngoor wi foofu. waaw tàng na jër nag moom tàng na jër. maa ngi ñaan yàlla benn ville ñu xëy rek Touba am géej. amiin amiin kii wax dox la su ko mi féex mi saawar baawar. amiin gars yi foofu. waaw wax ak ñànku. ñànku mooy wax ak yow nii. maay wax ak yow maa leen di ñaanal géej. ah. mooy wax ak yow nii maay wax ni maay ñaan Touba am géej. <laughs> amiin waaw ñànku. waaw loo defaay. ñaan <laughs> ziar naa la. delloo ziar mu ngi looy lee looy lee. non da nga da nga nekk sama acteur. ah acteur la moo tax nga ñam moom ci Bandaam man Bandaam. ah. man maay sa ma acteur la man maay sa Bandaam. nuyu naa la ziar la. delloo ci la wax nag gën a continuer te te te te liggéey bu baax a baax. incha allah nga gën a gën a continuer. ça dépend ci gars yi rek. gën a dof jaajëf jaajëf jaajëf. nee na nga gën a dof. non ñi ma wax loolu. Ah, kay ah, nee na nga gën a continuer sa liggéey dof. gën a dof. loolu tamit loolu tamit. waaw waaw wax loolu nag yow tamit. Touba yàlla moom am géej. <laughs> Eh, yaa ngi mer yàlla bu ko am. daa dem. dem na. yow wool ma numéro bi bi ma la doon wooroo sànq kii laay lijjantil dibeem bi. ah kan. waaw waaw. waaw léegi. léegi wax dëgg yàlla. ministre de l'éducation nationale. ak gouvernement bi war na noo jël pexe ci lii bu fekkee sax. élèves yi jàngiwuñu. nañu wàcce ay maître nageur ak ay nit yu saytu géej gi. papa. waaw waaw. léegi loo bëgg yow ñu ñu tere ko complètement xam nga luy suñu problème. waaw Sénégal waaw. gis nga. Hmm. mbil boo bañee mbil boo bañee mu gaañ. Hmm. da ngay dagg ca jëm waxtaan ba. waaw waaw. Sénégal dañoo benn jikko mooy dañuy fekk dañuy fekk kuy jooy. <laughs> Hmm. gars yi seen saboté yi waaye seen seen affaire yi nga <laughs> jël yi ngay def ni da ngaa jëkk dama jóg dem sama yoon léegi te mu ma demee kenn mënu maa woowaat ba ma ñëw <laughs> comme golo <laughs> daa ngi noonu daal kii daa ñaaw de père doo doo ma gis boo defee noonu doo bu ma ñëwee rek ma sugg ci suuf waa léegi bi dañoo dañoo dañoo yemaat xam nga seen bopp man moo tax jëf leen doo ñëwee doo gis nga xoolal da da nga ànduloo golo waaw waaw <laughs> comme golo. <laughs> yow de pourtant buñ la ko defoon gis musiba de. kan lañ waaw. ma waaye du am. du am. Ah, ah. def def leen ko sam papa. ah ma ko def <laughs> man man xam nga man jantal laa. def leen ko rek ñu xool. waaw man maa jantal. def leen ko rek leen ma ko waaw nañ ko def. nañ ñëw waaw eh, nañ ñëw. defal fee sam defal. waaw nañ ma def très gros plan. suñu papa du ca bu ca paaja de. man man man man man maay seen baay nag. voilà man seen baay. su ko defee seen morom nag. su ko waaw su ko defee. mooy jikko ji may wax Sénégal lii. waaw moo dugal ak sa la. aywa yow kii yow nag. jàkkaarloo. mu demee foo yeewoo de. Diop si dafa dëpp gaa ngi nii daa leew daa leew. kii mooy daj dëpp gi. xaaral ma nume rek. waxal ma nume mu nume li ma ko dàqee bariwul waxal bàyyi ko yàlla ngaa ñaaw. li ma ko dàqee bariwul waxal ma ñoom mën naa dàq. waaw léegi kii ma xool ñoom ñaar maa ci loolu. léegi ku nekk léegi ku nekk ni nga mën a def sa kanam. lefet nañ lefet nañ lefet lefet la. waaw lefet la wala lewal lewal. ñànku le golden boy. good direct gros plan. man si ci gémmiñ jël ci kaw jël ci kaw jël ci kaw eh jël si jël kaw waaw waaw waaw. attends. ok merci. Euh, Manoumbe. <laughs> nga léegi kan moo gën a ñaaw. yéen ñaar kan moo gën a ñaaw. mais yéen ñaar li ma leen dàqee balewul nekkate. li ma leen dàqee balewul. waaw waaye waaye balewul. yaa ci gën a ñaaw ñëpp yow yaa gën a ñaaw ñëpp yow comme tàngin. waaw léegi man. waaw léegi ñu continuer. waaw su